delloo ziar baax a baax. waa yaa ngi si jàmm. sant bu baax a yàlla dogal nga bëre ba dem final looy wax. waaw sant yàlla rek. ki nga war a bëreel xam nga ko Papa Papa Ngane Sossokh. waaw champion la xam naa ko. mës ngeen a bëre. non non c'est la première fois ñu daje nii incha allah ci kanam léegi. mësu leen a bëre. non mësuñu bëre. ren ren nan naka nga waajee. waaw affaire yi comme ni ma leen rek dangay ngay def li nga mën rek ñëw yàlla mooy maye mooy xaña ma ngi ñaan yàlla na may rek. final bi luñ ci mën a xaar. waaw moom xam nga kii champion la yaa xam gars yi bëriwoon nañu ngay compétir ba ñëw fii xam nga comme moom du cuune quoi da nga koy jox rek. loo yóbbante. non yóbbante wu ma ko dara. amul lenn loo yóbbante. non non kon ci kanam. merci bonne chance. jaajëf merci. ak euh, Papa Ngane alias Sossokh mbër maa ngi lay ziar. waa delloo ziar grand bi. añaaja. waaw andi rek. waxee Noosa. andi rek. <laughs> ayca nga bëre ba waaw maa ngi sant yàlla bu baax waaw di nuyu supporters yëpp nag waaw vraiment kontaan trop di nuyu waa Ñaaxaar itam ak ko war a bëre ak champion Émile François Gomis. waaw waaw ñaari champion lañ. ñaari champion la. waaw ñaari ndaanaan. waaw ñaari ndaanaan. mos ngeen a bëre. non mosu ñoo bëre. waaw laaj ko sànq mu ne mosu leen a bëre. déedéet. ci mbapat yi yëpp da ngeen mosu leen a bëre. non mosu ñu man nag xam nga damay door a yéeg ci poids lourd. waaw waaw yàgg naa ci bëre nag mais ñoom bokkuma ñoom génération. Mm. loolu moo taxoon sant yàlla bu baax. tey tey bi tey sama bés la. tey lu mën a xaar ci soosoox ci lu bees ci final bi. non bés bi tey sama bés la. tey tey bés bi sa la. lu tax nga wax loolu. waa dema ko xam rek. dafa am foo ko teg. waaw fan nga ko teg. nañ xaar bu ci kanam. ci kanam dina leer. incha allah loo yóbbante waaw di ko wax mu jàpp mu dégg rek. mu jàpp mu dégg waaw gone lay bëreel de. mu jàppul. daanu. daanu. ci kanam dina leer. incha allah. jaajëf mbër. mbë jaajëf. ay ca siiru ña mbokk yi final poids lourd baa ngi noonu di dox ci diggante Émile François Gomis ak Pape Ngane alias Sossokh ñu ànd ak Faata production ki ko jiite di Yaxya Joob Yékini tey jii di samedi le 19 février 2022 et eh, est-ce que est-ce que est duggun ci le 23 est-ce que duggun ci la 20 février le 20 parce que fi mu toll nii 3 heures du matin jot na. diggante Émile François Gomis Papongane Sossokh arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar tegante nañu bopp ku ci nekk bi ma la interrogé sànq am na loo ma wax arbitre attention Franc jël na ko Franc jël na tànk ba laa ilaaha illallaah Franc jël na ko eh Franc daan na ko Franc daan ko jël ba gaaw na laa ilaaha illallaah eh waaw waaw Franc daan na ko jeex na Franc daan na ko